asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki alquran di ab jàngale katub alquran wala jàng katub alquran waaye bokki jullit yi nga xam ne ñoo senq seq diine lislaam ji noo ngi am mbégte toog fii ci kër sëriñ mo Mouhamadul Xabbaan ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak waa rabitatul quraaniya ci njiitul Cheikh Mouhamadul Basir moom sëriñ Abibu mu feggoo ak sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Xaali Jaxate ak ñiñ ko seqal dend ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Buso moo ko jiite ñu jot ndigal nag ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndigal loo xam ne mi ngi jëm ci dogalub yàlla bi nga xam ne wàcc na ci kaw suuf te wàcc ci réewum Sénégal wàcc ci sunuy bokk mu di daje googu nga xam ne ñaari oto yi daje nañ ko ci yoonu Tamba wi ba ay bakkan wadd ca ay nit gaañu ca loolu nag sëriñ Mouhamadul xaa xam ne lu bàyyi ko fi yàlla la mu wóor ko ne dara mënu ci dara lu weesu tuub delluwaat ci yàlla ak ñaanal ña dem sun borom jéggal leen ña ca des sun borom delloowaat leen ci seen sago looto moo tax mu jox ko ndigal nag ci njàngum alxuraan moom santaane ci réew mépp ci ku koy déglu ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi. sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. bokki jullit yi. fu waay mën a nekk. fi ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal. rawatina nag bokki taalibe murid yi. mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa. moo leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihun ci dogalub sunu borom bi wàcc ci bokki julit yooyu muy dogal boo xam ne sunu borom da koo dogal te ab dogalam nag kenn mënu ci dara waaye sañees naa muñ ak ñaan yàlla nag sëriñ bi wax ne. ñi nga xam ñoom ñoo bokk. mi ngi massawu ñi nga xam ne ñoo ca am ay bokk. di ci ñaanal nag ña ca bàyyi ko. sunu borom defal leen ak njëgal. teg loxo nag ci seenu njaboot. te ña ko am. wala seeni waajur. ñi ngi sant ñëpp. ngir bu subaa. ngir bu subaa. ku di ab taalibe nag. sëriñ baa ngi lay digal. te nga yor daara. jàngulu wala nga mën a jàngulu bu dee bokki jullit yi bu dee bokki jullit yi ñu ngi koy sàkku ci ñoom ci noonu ko sëriñ bi waxee ñun ñëpp ñu ànd fu daara nekk ñu doxal fa loola ñaan yàlla ñu la ci des jàmm yàlla def ko ca ña ca raj sunu borom defal leen ak wér ak mucc lii nag day ab dogal boo xam ne sëriñ bi wax na ne ku mu wàcc ci rek. ku wàcc ci yow. sunu borom mi ko dogal. sunu borom mi ko dogal. moo moo koy dogal. moo koy dogal. la ca gën nag kon. la ca gën nag kon. mooy muñ ko. waaye nag lu tiis la. waaye nag lu tiis la. ndax boo dee xool li bàyyi ko ñëpp. ndax boo dee kat la ca bàyyi ko lépp. dañuy dañuy ñu yaakaaru. ndaw di ay ndaw. waaye nag fan jëm. waaye fan jëm. nanu ñaan rek sunu borom mu gënal leen fi nu bàyyi ko. lépp lu sunu def rek. ndax lépp lu sunu borom def ak muñ akuk cant ni ko Serigne Touba di waxee sa sabru ak sukkur rek moo ci war kon ñi ngi sant ñëpp ci ñu am farlu ci ci ñu am farlu nag su fépp fu jàkka ne bu ñu mënee wàcc ay kaamil bu dee daara noonu li ci des nag da koy bàyyee ak bokki taalibe yi ndax fii ñu toog nii waa raabita ak mun na samaat yëpp daal ñu ngi nii waaye dañoo aju ci sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi rek kon nag foofu mbooloo mën a ne na xam ne daal lii mooy ndigal li ñu ngi ñaan nag lii gëj fi di dànkaafu nag sa force di dànkaafu nag sa force bàyyi xel ci. ñuy bàyyi xel ci. loo gis dogalub suñu borom la. loo gis dogalub suñu borom la. waaye nag ak dal dana tax waaye nag ak dal dana tax dogal ba woyof. ñu ngi ñaan suñu borom musal leen. ñu ngi ñaan suñu borom musal leen. musal oto yi oto yi. ndax mënee suta ñàkk dugg ci oto. ndax mënee suta ñàkk dugg ci oto. waaye nag buñ ciy dugg. waaye nag buñ ciy dugg. ñu xam ñu ciy duggee. ñu xam ñu ciy duggee. ñay dawal itam. ñay dawal itam. xam nañ ci ñoom nañuy dawale. xam ni ñoom nañuy dawale. am na ku baax. am na ku baax. ku waxoon ni. ku waxoon ne. dawal bi gën a eh, ñoŋ ci dawal yi. dawal nga xam ne moo gën a ñoŋ ci dawal yi. bu nee bu nee tàcc nga ne teg. bu nee tàcc nga ne teg. bu ne yow. nga ne yor. ku koy def rek. suñ borom mën nañoo musal ci lépp. ñoo ngi ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. ci taxawaayam ci taxawaayam. ci lépp lu jóg ci lépp lu jóg. dana ca taxaw nam ca war a taxawee. dana ca a ndax lii ba mu ko yëgee ba léegi. daa daa taxaw temm ci ne nañ yëgal ñëpp ñu ñaan sunu borom yamal yamale fi nattu bii. ku am ku mel noonu nag. da nga koy ñaanal yàlla. sunu borom yàggal ko fi bàyyil ñu ko fi. ak mbooleem nag njabootam yi mu jaboote yëpp. di ay rak. di ay seex. di ay bokki taalibe ñi ngi sant ñëpp. sëriñ Basiiru mii nee na moom la joxoon ndigal li mu wax. ñëpp dañ waaye moom ñëpp dañ ko joxaat kàddu gi ndax li ma sëriñ bi sant li ko sëriñ bi sant na wax ku ci waxoon nag mu doy waaye ku ci waxoon ñoom mu doy jërë ngeen jëf kon ndigal laa ngi noonu sëriñ bi wax ne kon bu subaa ci altine ci altine ji na ko ñëpp xëyee muy bis boo xam ne bisub ñaan la di ñaanal ñu dawlu ji sun borom jéggal leen te yërëm leen di tuubaatit delluwaat ci sun borom ñaan dogal bii gëj fi di delloowaat it nit ñi ci yàlla di wax ne mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ca ñàkk nañ ko muñ muñu wu rafet te delloo lépp ci dogalub yàlla xam ne yàllaa ko dogal te dara munta am te yàlla dogalu ko kon noonu rek la demee ñun ñëpp ñu maase tàllalaat suñu loxo seriñ bi ñaan ñu ñaan sun borom dogal bii gëj ci réew mi lool te mbooleem ku ci bàyyi ko sun borom yóbbu la àjjana ña nekk ci lali hôpital yi sun borom wéral leen ta loolu waat leen ci seen sago wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.